Euh, sunuy euh, gan euh, ñu njëkkee kook Cheikh Baye Cissé borom Kéemaan yaaram ñu ngi lay gërëm ci euh, teewaay bi euh, ñu euh, dëkkmal nag bis bu am solo muy troisième édition journée jërëjëfe Baye le 5 janvier la ñu koy amal ca CICES jot ngeen a organiser journée consultation gratuite le 25 décembre bi passé ca Sokone ngir dimbali askan wa fa ne accompagner leen itam ci événement bi donc le 5 janvier di date bu exceptionnelle boo xamee ni ñu ngi ko jagleel ku tedd ki ngeen tuddee ko jërëjëfe Baye alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaay wal mursalina sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala illa billah ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu aleykum salaam ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp képp ku nekk ci plateau bi di jiital Baye Cheikh ak sama wëlëre Oustaz maa ngi nuyu bu baax ak samay mbokk taalibe Mariane ak euh, soxna yi toog ci plateau bi yëpp di leen baal àq di leen baal àq wax maa ngi wax léegi nii ñu ngi jëm ci comme ni ñu ko gisee ci affiche bi keroog rek ñu ngi ciy waxtaan muy troisième édition journée euh, jërëjëfe Baye euh, ñetteel bi édition ndax mën nga ñu cee euh, wax ak lan moo ñuy xaar ci bis boobu incha allah fële ca CICES. waaw alhamdulilah ñu ngi nuyu beneen yoon xam nga bés bi bu am solo la. Mhm. ndax Baye Niass koo xam xam nu mu tasaaree diina. Mhm. xam nu tasaaree mbaax. xam tam nu mu góorgóorloo ci Sénégal ñu reconnaissance ñu am reconnaissance ne xam ne ay mag ñu baax fi nekk ay borom xam-xama fi ne mm-hmm. moo tax ñun bu nekk ay ndaw topp Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mm-hmm. nekk ay taalibeem mm-hmm. mu gindi ñu teg ñu ci yoon dëgg-dëgg jeunesse bi dinañ leen wan ne wax dëgg fa yàlla ñàkkuñ ñu topp ñàkkuñ ay mag ñoo xamante ne comme nu nga waxee rek ci ginnaaw ne tubaab bi nax nañu ba jàpp ne. Mhm. lu ñëw lu baax ñoom la fekk suñ mag ñi. fan ñi dañ maa jaaxal suñ mag ñi dëgg dëgg. réglé nañu moo tax bés bi ñu koy def ngir fàttali. Mhm. ne dëgg dëgg jàmm di seen àdduna bi yëpp di wër. Mhm. bu ñëwee si suñ mag ñi. wax dëgg yàlla tracé na ñoom bi. dëgg dëgg solution philo yëpp ñu gis si àdduna mu jaaxal leen. bu ñëwoon si suñ mag ñi ku mel ni Cheikh Ibrahima Niass. Cheikh Khadim El Hadj Malick Sy. wane yoon bi kon ñun ndaw ñi ñoo mën a oote. Mhm. ba oote boobu jéggi frontière yi. Mhm. ngir ñi nga xamante ne ñoo nekk ay diplôme nekk Sénégal. Mhm. ak ñu nekkul Sénégal. mën a gis ne dëgg-dëgg am nañ ay mag ñu baax ñoo xamante ne. buñ leen tegee loxo. dëgg-dëgg solution yooyu ñu ut dinañ ko am si ñoom. loolu moo waral bés bi nii. ñu jàpp ko nag ren mooy troisième édition bi ñu war ko defee ci CICES. ma Cheikh Mahi a Ibrahima euh, Cheikh Mahi Ibrahima Niass. nekk borom xam-xam. di wëlu yàlla bu màgg. a gannaaw xalifa bi moo mag ci doomi bàññi si di borom xam-xam bu màgg moom war a ñëw taxawee mhm. jataay bi nga xamante ne bàññi radiyallahu anhu dafa ñëw ngir suuxat mbëggeel ci yonent bi saa sallam jeunesse bi dañ koo ñàkk mhm. dafa ñëw ngir wane mbaax mhm. waaye dafa ñëw tam ngir wane njub te dëgg-dëgg loolu la population Sénégal soxla mhm. waaye itam loolu la yonent bi saasam bëggoon ci xeetam mhm, waaw moo tax tey ñun ñi itam nekk ay jeune mhm. bëgg itam fàttali fa zakir fa inna zikra tanfa'ul ñu taxawal ko te bàññi ta dee la xam koo xam ko <coughs> gërëm ci yonent bi saasam ku ne indi nii xablal baraaya xubbu suxlal janaan yi ku naan aadama doon am sax avant moo am uh-huh. man bàyyi maa ngi bëgg yonent mi di ko fuglu uh-huh. kon kooku Euh, yàgg naa bëgg yonent bi bëggal gi yàgg na mhm. ki xamante ne nee fa wallahi maa fi xal bi xaasun li xayrihi mhm. fa xayru rasulullahi laysa li taalama mhm. mu ngi waat ne man bàyyi ñis radiyallahu anhu dara nekkut sama xol bi aw ma leneen lu du yonent bi saa salaam wax ne dem na sax boo xam ne fa waxti wa saxaati saraftu lu zikir yi salaatan wa madhan minhu xat sirtu jaylama nee na sama tag samay waxtu ak samay heure yëpp dama koo soppi dama koo jaay ci tagg yonent bi saa salaam xam nga loolu màgg la ki nga xamante ne ñun suñu waxtu yi léeg-léeg nga gis yërëm yëpp da koo jël soppi ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay mbind waaye mu ne noonu la demee ba mu def ko kuy ba mu def ko ku màgg màgg kon jeunesse bi lu ñu ut yëpp nañ topp mag ñi waaye nañ topp suukat si jéem a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax Sëñ Tuubaa yu rëy yëpp fu mu ko amee mooy bëgg yontu sa mm-hmm. Cheikh Ibrahima Niass maqaamam yu kawe yu rëy yëpp ak doole ju mu am yëpp lu ko du bëgg yontu bi saa salaam mm-hmm. kon daw ñi loolu daal lañ ñëw pour def fexe xale yi xam ne mm-hmm. lu ñuy uti jàpp ne alal lañ bëgg wërsëg lañ bëgg trang lañ bëgg daraja lañ bëgg waaye loolu yëpp mu ngi ci bëgg yontu bi moo tax ñu taxawal bési mel ni nga xamante ay bési yontu la waaye ñu jaarale ko suñu boo xamee ni bés bu ñu ci yegsee di ngeen ko mën a seetaan ci TFM euh, religion maa aussi c'est amoo sama fay euh, loolu euh, dama koy ñambaasaale rek en cas de heure supplémentaire ci li ma lay defal ci télé boobule nga xam ni programme mu diine yu mag yëpp dañu koy wone ci TFM religion donc le 5 janvier man nag may président fans club Aïda Moubaye kon xam naa Aïda Moubaye may indi sax. dëgg la moom laa moom laa bëgg a seetaan si incha allah. parce que gis naa ko ci programme bi. en plus de bernde xamee ni Marianne moo lay yëkkati ndax benn lay 13 heures la. yow tam nga tey heures le programme bi tàmbali. incha allah <laughs> n'est-ce pas. <laughs> xam naa waxtaan ba moo fay moo ëpp solo. ci lay dox boos. <laughs> waaw amul solo waaw journée bi dañ ciy ñëw parce que Pape mm-hmm. déjà lu mu lu mu wax dafa am solo. Mm-hmm. Euh, journée jërëjëfay bàyyi. Mm-hmm. donc même suñu waxul woon sax programme bi yaakaar naa ne su ñu waxoon journée jërëjëfay bàyyi rek képp kuy soppeem rek war nga cee mën a teew. te Mawlana Cheikh Ibrahim dafay wax ni euh, suñuy waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wasallam du pour ñu wax diw mooy papam wala diw mooy yaayam. pour rek euh, nit ci xam jàngee ci ay jikkoom yu rafet yaakaar naa ne suñu waxee tamit journée jaajëfal baay pour mhm. nit yi ñëw jàng ci ay jikko baay te pour mhm. booy jàng si jikkoom lépp loo xamante ne moom la lay won rek mooy yonent bi sallallahu alayhi te comme ni nga ko waxee mhm. mag ñu baax ñi fi nekkoon rek lépp loo xamante ne moom la ñu am ñu ngi ko amee ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba Sidi Hadj Malick sax nee na moom yaakaaru leneen lu dul bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu sauvé ko donc loolu dafa nekk lu am solo rawatina nag ñu tuddee ko ki nga xamante ne mooy doomu Mawlana Cheikh Ibrahim muy Papa daam kon ñu ngi la si jaajëfal di ñaan suñu borom rek taxawu la ci bis bi ci barke la di nuyu xam naa xalifa balaa ñu jóge ci plateau bi mhm. nga xamante ñun ay ndawam lañ mhm. parce que ñun suñu yëpp dañ koo jaay Cheikh Ibrahim waaye tey moom moo fi nekkal Cheikh Ibrahim ñu ngi ñaanal yàlla fanu gudd ànd ak wér di ñaanal rakkam ay magam muqaddamu Cheikh Ibrahim yeeg mbokk taalibe yëpp ñu ngi mhm. nuyu waaye rawatina nag ñi nga xamante ne tuddee ren bés bi muy sëñ Dame Ibrahima Niass nga xamante ne doom la ci Mawlana Cheikh Ibrahima nekkoon xalifaam hmm. di wëlu yàlla bu màgg ñu ngi o njabootam yëpp ci bés bi di oo mbokki taalibe yëpp Mariane ñu ngi lay ndokkal yow tam di ndokkal mbokki taalibe yi oustaz Baye Cheikh yéen ñëpp occasion bi nga ñu jox ñu jàllale lu baax c'est normal jërëjëf waaw Aïcha euh, il faut ñu xam ne mag dem comme niñ leen di gisee seen photo amuñu âge boobu door a taxaw li taxawal ku mel Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bi muy bind ruuxul adab muy laam de l'éducation nga xam ne li mu si wax lépp defar doomu aadama la te mu ngi ko jëlee ko def am fukki at ak juróom-ñett dix-huit ans kon nga xam ne ñoom seen lépp yàgg nañ ko jox Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon boo jëlee thème bi daanaka mag ñi euh, faram fàccal nañ ñu ko bu yàgg tegal ñu ko fi ñun dëgg li ci des rek moom mooy ñu appliquer di ñaan yàlla bés bi yàlla nañ si yegg ak jàmm ak salaam insha allah te yàgg itam di ko ay at yu bëree bëree bëri macha allah macha allah jërëjëf euh, Cheikh Baye Cissé borom Kéemaan ñu ngi lay gërëm bu baax yàlla suñu borom yàggal sa taxawaay euh, programme baa ngoog di troisième édition jërëjëfe Baye incha allah le 5 janvier euh, la ñu koy amal ca CICES e programme bi nag dafay teel a tàmbali defe naa sa teewaay tey ci émission bi daanaka invitation la pour ñu bëri mm. ndax ci woo ñëpp euh, ci euh, bis boobu la nga xam ne ni incha allah le 5 janvier euh, la ñu koy amal waaye lu ko jiitu ci.